asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan ma la di Kan Jaalo ñu ngi fii si biir Kokoloko fa seeneel indi seen wañ bi programme wañ bi programme nag am ci kanku ngeen si doon àndal waaye tey man mi maa leen di indil wañ bi programme da ngeen bëgg xam lan leen war a am tey si biir wañ bi programme samay caméraman topp leen ma ñu wan leen tey lan leen war a am tey si biir wañ bi programme suis si biir waañ bi léegi dañu ñëw ñu nuyu chef bi ma laajte ko léegi léegi tey lan lañ nga amal tey chef nuyu naa la fay naa jaa naka nga def may fay naka yaa ngi cool eh maa ngi cool tey lan nga ñu amal tey si biir waañ bi ah, tey moom tey ma leen amal bena bis bu ndaw sëriñ peri peri ak benn chicken breast with uh, with cheese and tomato Oh, that is nice. Nakakuha na toge. Um, uh, okay, low mota tema presently because affaire dafa ojeno why dama present li lu ndaw rek pour pour nga mun ko eh, uh, gis nakana naa doore di préparation yi noonu li yëpp waroon naa koo pil prons yi waroon naa pil dama na har pour ngeen gis la la wara toga. soo koy toogal lan ak lan nga soxla. Ah, lii fii fu mu nekk ah, xorom poobar ak ak like soya sauce xëy na olive oil tuuti rek waaw léegi ma am bota tuuti tam. kon te léegi xaar ma bàyyi la nga tooga su ko defee man dinaa ñëwaat. ok amoo problème naa start si suma préparation bi. bu kay nag ba léegi yéen a ngi seetaan seen waañ bi programme chef bi nag togg na ba pare léegi dañ koy bàyyi mu yekk chef gis naa boo boo defaree ginaar ba pare boo frayé ginaar ba pare jël nga ko def ko ci biir ogul bi lu tax nga def ko foofu. soo ko soo toogee ba pare. nekk soo soo bëggee sa sa lekka bi pour mu ñëw bu baax du ko ñëw customer pour customer bu mu complain parce que léegi-léegi sa da nga de toogal loo xamante ne mu ngi frise so foog nga soo ko grillé ba pare da ko dugga si oven bi oven bi ji gën koo ñorloo loolu moo tax ma ma pare si chicken breast bi ma dugal ko si oven bi. léegi chef looy tàggatoo. Ah, man naa la njëkk a gërëm ah, nga. Yang travailler pour yotami you know, sa sa education bi muna muna high you know so konten nasi yo sa presentation bi I'm very happy because manta am na doom bu em ni yow mun munu ko waaye mangla mangla encourage pour yotaa nga nga yo si dégg nga waaw léegi konte dañoo ñëw dugal suñ ges bi mu mos mu la toga bi sax ba léegi suñ programme bi legi asine suñ gan bi moo nekk ya oli legi ya oli te la bay nga nuyo nuyu na la ka jana nga def fay na la ya oli na nga def ya ngi nice de jërëjëf ya ma ha dafa melni da nga dona li ci sa wajuri de ñu <laughs> ne dom ja ndey ja dox du bàyyi yonam du deg aha na nga def ma fi ya ngi fine wa ganaw ñëw nga ci wañ bi leg dañ bugg wax rek kan moy ya oli waaw ya oli ben tout tank la rek bu nekk di liggey QTV Euh, maa ngee liggéey foofu noonu as a marketing assistant ba pare euh, maa ngi liggéey tamit as a presenter euh, emuma ci loolu rek parce que ñu ne benn benn loxo rek mënta dem maa ngi business tamit maa ngi am suma tailoring shop bi nga xam ne mooy Olis Creation lépp lu ma sol si télé bi rek man maa koy ñëw. léegi nag yaa Olis tey nekk si studio bi. Mhm. tey ñu bi. léegi yow nga gën a ah. man naa xam nga man soose laa ñun waa Kiyang lañ man duma daal mooy suma favorite am lekka ñun nag pël lañ yéen na pël lañ yéen moom ma bàyyi leen si xaako yi rek ak xaako poti ak xaako batara <laughs> yow ban bëgga ban tooga nga gën a bëgga tooga parce que yow dégg naa lekkakat la waaw ah, foo gis toogakat rek lay nekk ah, man nag tooga gi ma gën a mun mooy dooma daa parce que mooy suma favorite waaw Toga mom, macha allah man ragaluma ben jigen ci lolu parce que jigen bu ne toga nga wara ndika janga ci liggéey bi wa so mu ne toga rek macha allah nga yeb te man mom ragaluma ben jigen ci toga dama da mom la gene muna toga a loko, dañu toga chicken breast, ak ak sipa sipa leg leg dañu bay ya ñu assaini suñu lekka bi leg suñu lekkee ba pare. dinaa delluwaat ak yow nga wax ma lan la togg bi saf. waaw baax na amul problème chicken breast bi ak ak ak seen euh, shawarma euh, streams bi. waaw boobu lekk tubaab la. Surf on the right, like this. That's the streams in garlic. Mm-hmm. like this on the right. Oh, thank you. Bon appétit. Genau, ya Oli, léegi yow ba lek dama laa la jala la toog bi um ganaar bi neex na parce que def nañ si spicy sauce bi andal. àndal nga am ehm, nga am ehm, salade be kakumba bi aside nga am cheese bi tamit ganaar bi so soo ko lekkee yaa am taste cheese bi neex na trop. suma bos. No, sa bos mom dapat spicy trop mo tax waaye dafa neex. xanaa bi sa waajal fu ko doon jërëjëf yaa Oli ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw jërëjëf Kaja um, kontaan naa li ngeen ma invite tey ci um, waañ bi programme um, macha allah it e, e, maa ngi kontaan trop because tey la international day of children's day of broadcasting te macha allah ñun ñëpp time yi xale dañ daan def lii tey ma gis la ngeen def ko. lu neex la nice na torop ah dafa melni tamit xalé yi tamit dañ bokk ci society bi so ñu am bes bo xamne dañ ko jagleel xalé yi mm. man dal kontaan na torop yow mom rek ambiance nga yow kese <laughs> neex na trop jërëjëf maa gën a kontaan jërëjëf <laughs> jërëjëf ya, oli jërëjëf moo kay lii nii lañ leen amaloon si seen waañ bi programme ma ngi nuyu mamar ja oncle Momar ma ngi nuyu oncle Cheikh Tidiane ma ngi nuyu oncle anti yaoli oli nuyu tamit anti kanku mai nuyu suma yaay nuyu suma papa nuyu suma famille yëpp ñu xale ñoo amé programme bi yëpp ci télé bi jërëjëf ñu ñëw seetaan yëpp oh de Gambia thank you bye bye see you next time.